ku bees moo mel noonu. Euh, yow naka nga ko gisee ak aussi métti boobu noonu ndax ngeen koy dundee. mu aw man jàpp naa ne réew mi métti na métti goo xam ne jamono ji euh, Sénégal gën na koo métti xam nga bu fekkee ne dañuy wax te yàlla rek tax. Mm-hmm. réew mi Sénégal daa taxaw. waaw xaalis amut ñu la war a fay duñ la fay. Mm-hmm. dara dara dara amut. régime bu bees moo waral loolu. régime bu bees changement bi mais mais ñun. maanaam du seen cuune changement bi moo tax lépp taxaw. loolu foofu laa bëgg a waxee mais ñun dañ leen di comprendre. dañ leen di mën a comprendre bu baax a baax a parce que nguur bu bees bu toggee. Mhm. képp koo xam ne daa yoroon alal lu muy njëkk a def day téye alalam. Mhm. baykat yi dañuy téye seen alal. investisseur dañuy mhm. téye seen alal. le secteur privé national dañuy téye seen alal ñëpp dañuy téye. jéem a xool ñii fan lañ jëm. même les services de l' état il faut que pour xam un peu balaa ñoo lañ jëm mais transition boobu. boobu nag la sénégalais nekk te boobu day metti parce que tey da ngay xool ñoo xam ne dañ la daan mën a jox. lenn ci ay koppar mais da ñëw si ñoom ñu ne la mënuñu la jox dërëm mënuñu la ko jox donc da ngay comprendre ne réew mi métti na te fan yi di ñëw il faudrait que sénégal préparé wu metti na boo fekkee ne déglu nga le ministre des finances mm-hmm. euh, démb xaw barkawaati démb semaine bii wax na ko réew mi ñoom ñi ngi góorgóorlu ñi ngi def li ñu mën waaye na sénégal yi préparé wu que dina gën a fan yi di ñëw. mais waxuñu woon loolu c'est pas c'est pas non Mour Awa. ak la découverte du pétrole l'exploitation du pétrole. les gens dañoo am yaakaar. Mour Awa maanaam buñ tegul dara dara balaa neex. añ ci boppam balaa nga koy togg mu neex saa waay cin li ci boppam dina dëkk loo xam ne ne mala di mhm. dinañ ko tàngal dinañ ko baxal lu ne dina ko daj balaa ngay kii man damaa gëm na ne man damaa gëm na ne il faudrait que ñun tamit les sénégalais ñi xam lan lañ bëgg li Ousmane Sonko wax Jomaay doon wax barki démb ay waxi politicien la man mii yàgg naa wax na ne bari na. loolu moo la ñu jëlee fi ñu fi nekkoon. waaw mais xam nga li am solo de faire mieux et vite. loolu nag pour mu am yow man tous les sénégalais ñoo ci war a jàpp te ñu war a xam ne ne réew mi Jomaay moomu ko encore une fois réew mi Ousmane Sonko moomu ko réew mi on va vers des lendemains un peu plus durs. waaye loolu il faudrait que ñi serrer la ceinture te xam na ne c'est pour l'intérêt du Sénégal et c'est pour l'intérêt commun maintenant nag bu ñu demee nag bu ñu phase boobu bu ñu ko jëlee bu ñu ko sëyee ba passé fekk na ne production pétrole bi dugg bu baax production gaz bi dugg bu baax mhm. fii ak deux ans trois ans li ñuy am ñu mën ko injecté réinjecté ci ci ci ci économie bi bu boobaa dañuy am une croissance inclusive boobaa xaalis bi dafay jël dafay tourner boobaa agriculture bi dina commencer dox bu boobaa leneen leneen dina dina commencer mais jamono jii muy jomaay Ousmane Sonko ak bépp sénégalais bu la wax ne la Sénégal jamono jii di jëm weer yi ñu jëm laa la wax ou bien fii at ñaari at dina neex niñ ko yaakaaree loolu ay waxi naka sa kandang la ay waxi laxe mbaay la waaye li am solo ba am solo mooy ñi fi ne mhm. man xam naa ne am nañu yéene parce que xam naa leen mhm. dinañ dem du ñu dem loolu yàlla rek a xam waaye dañu toll foo xam ne il faut que ñun sénégalais yépp mhm. ñi yéene leen jàmm jàppale leen bés bu ñu demee